ay bul jooy ah bul jooy nag bul jooy bul jooy bul jooy bul jooy bul question bi mu lay laaj initiative Clara bi bi mooy deuxième édition bi euh, nan nga ma ko gisee déjà mooy di kontaan di kontaan di rafetlu si li nga xamante ne moom mooy euh, initiative bi ça à savoir euh, Raffinette Fashion Show bi te bii mooy suñu deuxième édition année bi li nga xamante ne moom mooy euh, tapis rose bi ñu def mooy sargal ko ñi nga xamante ne ñoo am cancer du sein et aussi mettre en avant mettre en exergue li nga xamante ne moom mooy la valorisation de la femme en milieu professionnel. tu vas Ça va. Ah, tu es toute belle là. Merci. Défilez ma gis tournel. tournel. <laughs> am ah, noo gisee bi nga xam ne moom nga joué di valeur. bien. Hmm. interprétation bi nan la demee. c'était bien. Hmm. comment tu as intégré la série. Je l'ai bien intégré, j'aime bien. Mmh. Tu aimes bien. Tu aimes bien euh, ta maman, ta maman et ton père Chérif. Oui. Chérif Mal. Mmh. <laughs> comment il se comporte avec toi? Bien. Très bien. Oui. Et, eh, et comment et comment tu as bien joué? J'espère que tu as bien joué. Oui. Tu penses que tu as bien joué? Oui. Mmh, c'est sûr. Donc, quels sont tes projets? Tu as des projets? Être architecte. Ah, tu veux être architecte? Oui. Ah bon Qu'est-ce que tu construire alors Des maisons. Des maisons et quoi d'autre euh, Des immeubles. Hmm. tu vis ça avec ta famille Tu es devenue une actrice maintenant, <laughs> une star. quest tu vis ça avec ta famille Comment tu vis ça avec ta famille Je vis ça bien. Mmh. Comme ça. <laughs> D'accord, beaucoup bébé. Et qui t'a habillé comme Tu es toute belle. maman. pardon je sais pas bien. teewaay fii ci soirée bi. Mhm. waaw sama teewaay ci soirée bi mooy ñëw soutenir sama doom sama rakk Clara e aussi euh, muy dox ci lu nga xamante ne vraiment c'est une cause noble loolu moom mu fi indi tey indi sama participation. ñu xam na ci 5 ci lépp lu baax mais dafa dama jékki-jékki rek gisatuñ la. pourtant maa ngi fi. xanaa euh, plaisir rek. plaisir vraiment parce que xale yi c'est vrai que ñi ngi bay seen waar bu baax ñi ngi góorgóorlu ah parce que xam nga ñoom seen jamono ak suñu bés bokkul et yéen vous êtes plus outillés que ñun vous avez les réseaux sociaux n'est-ce pas donc euh, fierté rek lay am vraiment parce que la mode maintenant aujourd'hui c'est devenu quelque chose dans ce pays prostitution faite aux femmes xanaa métti rek métti rek bu doon sama sago jigéen dañ koy jox cëram ci biir société bi ah, jigéen dañ koy suturaal ci biir société bi te gis nañ ne valeur yooyu yëpp mu ngi commencé di effrité wu donc euh, frustration bu mag rek laay yëg merci beaucoup maman mais ku la habillé robe bi nice na sama bopp. si yii la yëngu. maman tuddal ñu xool sañ sa bi. waaw waaw waaw waaw. macha allah waaw.